bërëb bu mu jàng alxuraan xale yëpp di jàng alxuraan bu ko defee xale yi mucc yéen yéen ñi nga xam ne yéen ay wayjur xale yi ngeen mucc ndax xale yi buñ jàngu alxuraan karim bu ëllëgee ngeen am problème ndax xàqu wayjur ci doom mooy ginaar ba mu ko ba mu juddoo ci faratas yàlla ak sunnas muhammad mu tuddee ko tur bu rafet jàngal ko alxuraan karim su ma tee am soxna mu may ko soxna bu dee jigéen la su ma tee sëy mu may ko borom kër mu sëy kon ben xàq bobu di jang alxuraan karim pam mo ci taxaw te mo ne ñu ko de te lañ koy fay sax balaa mu jajjot xawa de a ci bu de france 50000 ngay fay ak 40000 ak 30000 mom la ñu sax 2000 kon nak day jaadu leg leg leg leg nga bokk lu doon ñew set si pap ne ko oustaz jàppal ci li maa la ko dimbalee te ken baña a ndax jaaraña te ko yor kii jàng kii jàngulu kii jàngale xale bi mooy jàng day nangoo jàng kii jàngulu mooy waajur bi day topp te ustaas bu ko defee ustaas bi génn xam-xamam di ko joxe man ma nekkee Tiwaawoon di jàngale ca daara ja am na benn xale boo xam ne yaayam saa bu musaa dem jumaa ja bu bu wëñee ko day jaar kër ga mboqal ma dix mille francs léeg-léeg mboqal ma six mille waaye gis ne balaa maa jox kenn leçon xale bu laa jox leçon ba sako ba mokkal ba noppi may door a jox keneen kon li nga ciy déggee yow mii wuy bu boo bëggee sa doom jàng bu baax dee gis Pape mii di leen jàngal léeg-léeg di ko jàppale te yàlla tax ndax Pape amul lu alxuraan bu ko neexoon defi leneen waaye mu jël alxuraan fas yéenee jàng alxuraan karim kooku dañ ko war a jàppale te yàlla tax boo gisee ni muy waxee yàggul sax xolam tooy mu jooy parce que dafa xam ku xam rek ragal yàlla xam na maa ngi ñaan waa koñ bi ko jàppale te yàlla tax nañ ko jàppale te yàlla tax man de su ma ko amoon jox naa ko daara bu yàgg waaye nag yàlla xam na li ci xol yi nañu ko jàppale te yàlla tax yàlla xam na ne mëtuloon xëy ndax xam ngeen fii ñoo xam ne ay defkat yu baax lañu xam ngeen fii ay borom doole yoo xam ne nañ koo dimbali te yàlla tax kon nag jàppale leen ko te yàlla tax bu ko defee moom it mu jàppale leen te yàlla tax bu ko defee lépp daal di baax ñu ngi jégalu ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu bàyyi xale ñu continuer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 بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألهى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به ربك يومئذ المسار فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى